salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi ziar ñëpp di jox seen wàcc waaye tey ñu ngi ñëw Osselico daal di TV ñëw fi nga xamante ne nii mooy parcelle 22 église ñu ñëw indi leen cax bi nga xamante ne nii comme ni nga ko daan doxalee rek micro territoire ñu dexewaat ko noonu tey ànd ak gars yi tey cax bi benn cax la ñu ngi ñëw di laaj ne leen am na nit bi nga xamante ni nii mu ngi ci yaramu nit ñu bëgg a laaj gars yi kan tey nan dugg si gars yi ak réponse bi kan moo ñu koy indil incha allah asalaamaaleykum gars yi ñëwaat na ñu ngi nii doxaat nii ñëw ville tey si micro trottoir ñëw dajante kii Grand Savane naka mu tur bi nan la borom daaro maam Thierno waaw nee na moom borom daaro tudd borom daaro Eaux et Locaux mu ñëwaat tey di cax dama ñëw di la cax benn question rek di la laaj man am na benn tur nit bi nga xamante mu ngi si yaramu nit ma lay tur bi nga Euh, en fait mën na nekk j'espère que jëmm euh, jëmm. ah yow la nga yow jàpp daal. waa jëmm parce que xëy si jëmm rek la dem. jëmm waaw. Ah, yow la nga xalaat waaw léegi yow bu si ma ñëw di laaj lan nga si vaccin waaw vaccin bi de man de dégg laa ci am. ah dégg nga ci am. sincèrement pare gisuguma kuñ vacciné. mais yow bu ñëwee baa di nga vacciné wala doo vacciné wu. ah man ba ma juddoo léegi dafa ragal piqûre man du vacciné wu quoi. mais yàlla baax na yàlla baax na gars yi peut xool kenn peut-être jox question bi nga xam ne wala laaj. ok nan dem. waaw gars yi yow ba léegi ñu ngi bi ñëw pour laaj suñu question bi. grand ça va nakam. bi naka la Pape Sakho Pape Sakho waaw moom nee la tudd Pape Sakho dama ñëw di laaj benn question quoi ah. ma ñëw di laaj ne la am na benn tur bi nga xamante mu ngi si yaramu nit may laaj tur boobu la tur boo xam ne mi ngi ci yaramu nit mu ngi ci yaramu nit xanaa awra la <laughs> nga tur bi la awra ah moom nee na awra la nekk si xalaatam mais yaakaar naa du loolu quoi mais awra ngay gis amul problème amul amul problème nan dem mais may laaj yow tamit hmm. vaccin bii di ni yow sa xalaat la vaccin yow baaxul. ku ko dóor kuñ ko dóor da ngay sedd guy dégg. moom la de man sama bi nag couvre-feu bi baax na si dëkk bi wala baaxul si dëkk bi. baaxu ci dara moom di wër dañ dewaat ak booy bi ñëw di ko laaj naa nag moom borom bopp la quoi karak la muy dama ñëw tey di ko gan naka mu. nice yaa ngi si jàmm lépp bi nan la tur bi Dibzo la. Dibzo mais ñu may woowee Zanso. waaw yee Zanso Zanso ñu ngi lay wax ni la sunu média TV moo la seesi woon di laaj. waaw ñu lay laaj benn question bi ni cax bu cax rek laa la indil ko affaire olof. may laaj ni la am tur nit bi xamante ni mu ngi ci yaramu nit. ma laaj tur ban tur la. tur nekk noonu si sama yaram. waaw ça nu mu koy noon noonu. Mhm. tur noonu laa bëgg xam quoi. yow nga bëgg xam. waaw non non war tur bi mën naa la koy affaire bi cax la wala du cax. cax la dama la cax ni la am na tur nit bi nga xamante ni mu ngi ci yaram nit. ah mu ngi ci yaramu nit. te tur bi laa bëgg nga wax ma ko. c'est notre corps. waaw daa am ku tudd notre corps. parce que suñu yaram notre corps ngay tudd. <laughs> waaye nag bu ma daa ci loo quoi. <laughs> ngeen non ma may laaj tur bi ban tur la. tur bi c'est notre corps. notre corps yow la nga gis. waaw waaw moom nee xalaatam notre corps la waaw damay laaj ne la vaccin yii di ñëw. ba xam yow pare pare nga pour vacciner wu wala yow pare woo. non du ma vacciner de. ah yow la moo tax doo vacciner wu. parce que seetaan naa benn caméra cachée si Mafous. Mhm. moog homme parce que loolu moom. dëgg la mais vaccin bi moom baaxul si ñun quoi. yow loolu nga gis baaxul si ñun. loolu laa gis de. mais couvre-feu bi ñu def la wala arrangé wul nit ñi. waaw des fois arrangé na dafa am ñoo xam ne dañu liggéey quoi Macky Sall na bàyyi gars yi ñu liggéey. loolu nga gis. waaw loolu laa gisee. loolu sa xalaat loolu la. waaw waaw ah, ok kontaan nañ si yow trop Sunu Média TV moo la seesoon doon laaj question bi. merci waay jërëjëf. ñu ngi nii ñëwaat tey fii ñu ngi si marché église ba léegi di wër di laaj dañuy tawaat ak sunu gannaaw gannaaw ça va naka si jàmm. jàmm rek tur bi nan la. man Ibrahima Bari Diallo. waaw moom nee na Ibrahima la tudd la tudd Ibrahima dama ñëwoon di la poser benn question di la laaj. ngi si yaramu nit. waaw ma lay laaj tur boobu si yaram nit. feebar. ah yow feebar ngay gis. nit dina tudd feebar. ah non. <laughs> feebar laa gis. <laughs> Ah, moom nee turbi tur bi feebar la ko yaakaar ko waa waaw laaj ma lay laaj man la vaccin bi di ñëw ba xam yow bu ñëwee di nga vaccin wala doo vaccin. ah man man mosuma wax ne. mosoo vaccin. ah kon yow xalaatoo vaccin ah ah kay bu ñu ñëwee kay ñu ne ko lii lii wax ne dañu may wax ne mais mosuma ko woon def. waaw dëgg la la. Mm-hmm. xam naa dama àddina moo moo moo àddina moo dox. Mm-hmm. àddina moo dox dëgg la. waaw yàlla baax na nee na àddina moo dox bu ñëwee dina vacciné wu incha allah yàlla baax na kontaan nañ si yow trop amal jàmm merci. waaw gars yi ñu ngi wër nii ba léegi di wër ku jox suñu réponse bi tax bi ba léegi amagul ka ñu dañu ñëwaat ak grand bi ñëwaat laaj grand ça va mu. waaw ça va si jàmm. alhamdulilah Sunu Média TV moo la see si woo la laaj. maa ngi laaj yow tur bi la. Uh, Ibrahima. Ibrahima nga tudd. waaw Ibrahima benn question laa ñëwoon di la ko laaj man la tur bi nga xamante ni mu ngi si yaramu nit. ma lay laaj tur bi ban tur la. tur nit uh, bu nekk si yaramu nit. Mhm. ma lay laaj tur bi ban tur la. ah loolu moom franchement xaw ma ko quoi. non xamoo mu ngi ci yow de. mu ngi ci man mu ngi ci yow man tur bi su ma su nga xalaat sax jéem a wax tur bi ban tur la. ni tey mënoo ma ko wax man kay mënu ma ko man dama la posé question di la laaj yow wax ma tur bi. wax dëgg yàlla xaw ma ko franchement tur bi yow xamoo tur bi sa xalaat daal xamoo tur bi waaye damay laaj ne la vaccin yi di ñëw yow sa xalaat la mooy sa sa xalaat si vaccin yi di ñëwaat à propos covid 19 quoi waaw pour vaccin yi hmm. ah gars yi gars la plupart gars yi nenoon vaccin bi gars yi nenoon euh, ñu neen efficace hmm. la plupart gars yi nga wax ah gars ko wax mais di nga vaccin wu wala yow doo vaccin wu ah ba xam dinaa li li ñëw yàlla xam quoi li ñëw yàlla ko xam quoi yàlla rek a xam yàlla ñëw ko xam waaw couvre-feu wi ñu def nii baax na wala baaxul baax na baaxul benn côté parce que benn côté boo xoolee vingt une heures bi ñuy def nii ça sert à rien hmm. vingt une heures bi gars yi tànk bi bi ñuy demee di ñëw vingt une euh, bi ñëwee hmm. bon am na ñoo xam xam ne du leen arrangé parce que am ñoo xam ne diñu jógee wàcc ah, bala ñu yegg Sénégal bon ça pose problème donc donc benn côté baax na parce que boo nee feebar bi dafa law ci dëkk bi boo ah. feebar bi bien c'est partout dans le monde hmm. il est temps am na solo amul solo daal benn côté waaw am na solo amul solo ok merci jërëjëf kontaan nañ si yow trop def nga leen merci kontaan nañ sunu média tv moo la seetsi woon di wër di laaj dañëwaat ak sunu grand bi ñu ko laaj grand ça va naka si jàmm waaw bi nan la man Ibrahima laa tudd Ibrahima nga tudd waaw Ibrahima sunu média tv moo la seetsi woon ñu woon tey di laaj benn question ma lay laaj ne la am na benn tur nit bi nga xamante mu ngi ci yaramu nit may laaj tur yi ban tur la. <laughs> beneen turu nit bu nekk si yaramu nit. waaw may laaj tur la. tur boobu noonu. Mhm. mais tur boobu noonu garaaw la de mooy tur bi la tuddee rek. mooy tur bi la tuddee man. waaw ban tur la ma tuddee. mooy tur bi la tuddee rek mooy nekk si nit. non non am na benn tur nga xamante laa la laaj dama la yow. tur bi nga xamante ne mu ngi si sa yaram pour nga génneel ma tur boobu la. benn tur bu nekk sa yaram. feebar wala. <laughs> non <laughs> a man dama daaj yow daal xamoo ko daal. non yaram kay bari na ay tur yu si nekk. waaw génn la benn tur. waaw instant yaram. Hmm. man nga ni biir. biir ah. waaw daa am ni ku tudd biir. ah non non. <laughs> non Ibrahima daal moom dafa sax dina ma biir quoi waaw léegi laaj ne la vaccin yi di ñëw sa xalaat lan mooy sa si vaccin yi di ñëw. vaccin yi di ñëw man vaccin yi di ñëw nii sama xalaat.

mais kontaan nañ si yow. waaw gars yi ñëwaat nañ tey dañuy ñi nga xamante ne nii ñoom si marché bi la ñuy liggéeyee ñëw tey pour laaj leen question bi ça va grand nakam. Eh, ba ngeen eh, jàmbar. yaa ngi si jàmm. Eh, tur bi nan la. Aliou. Aliou nga tudd. waaw Aliou sunu média TV moo la seet soo ñëw di la laaj benn question di la cax rek. may la am na benn tur bi nga xamante ni mu ngi si yaramu nit. may la tur bi ban tur la. mu ngi si yara nit. Mhm. <laughs> tur la quoi. waaw tur la mu ngi si yaramu mu ngi si yaramu nit. ah loolu cax boobu moom mënuma ko cax. Ah. mënoo kaa jég. waaw kaa nga laaj sama waay dama daal tey fii neex na quoi boobu ba léegi maa ngi wër kii mënuma ko turfeel. waaw ah, mooy loolu. loolu sax loolu la. loolu loolu avant bu ma avant bu ma xamoon ne xalaat boobu damay toog xalaat ko quoi. waaw ah. yow gannaaw xamoo ko. cax boobu cax boobu ah boobu de moom gars yi kanam ma xalaat ci mais loolu lan la war a doon waaye. ah xamoo ko ni. non xaw ma ko vraiment. wala ma leen laaj ni leen. est-ce que eh, du kan. est-ce que du Macky Sall. Macky Sall <laughs> mais Macky Sall fa la ne si yërëm nit. magi daa magi dafa magi te yaa ma gën a xam. ah yow la nga gis laa ko yaakaar quoi. waaw suñ président bi dafa magi. dama ñun nit ñi koo gis mag dafa magi dafa ñaax xaalis. yow loo gis waaw gis waaw. waa léegi man ma lay laaj la vaccin yi di ñëw. waaw ba xam yow bu ñëwee di nga vaccin wu wala doo vacciné wu. man vaccin man naan saw moo ma gënal ma vaccin man. nga naan saw moo la gënal ma vaccin waaw barki yàlla naan saw moo ma ko gënal. moom nee na xalaatam de mu naan saw moo gënal ma vaccin. naan saw moo ma gënal ma vaccin mais couvre-feu bi arrangé na la waa arrangé wul. arrangé wul kenn. arrangé wul kenn man célibataire laa yërëm. kenn gisatul sa gel booy surtout booy man moom marié la waaw ok dëgg ok dëgg kontaan nañ si yow trop gaan amal jàmm yow borom baax nga waaw gars yi ñu ngi wër ba léegi ñëwaat nañ dayeen waat ak bi nga xam te ku baax la ñëwaat tey pour laajte laaj grand ça va naka mu ça va bien yaa si jàmm alhamdulilah tur bi nan la Bachir Bachir waaw ah, Bachir suñu média TV moo yow si li nga xam te ni benn cax la ñëw pour laajte ma ñëw di la laaj ni la am na benn bi nga xamante ni mu nga wax allah xaw ma ko teewoon dëgg yow xamoo tur bi. turu nit xamoo tur bi. turu nit. waaw waxal sa xalaat. wax ne si yaram la nit la nekk. waaw si yaram sa yaram daal boo xoolee am na sa benn. bi nga xamante ne nii tur daal tur la. waaw mais tur bi turu góor la wala turu jigéen. franchement xaw ma ko. yow xamoo ko. xaw ma ko xamoo ko xamoo ko. waaw vaccin yi di ñëw nii yow lan nga si gis sa xalaat. vaccin yi. Hmm. nañ dem vaccin corona bi jeex. mais bu la fa ñuy bi jeex. waaw. ah ñëpp am jàmm. def nii arrange na la wala arrangé wu la. amul benn njëriñ. waaw ah, ñu ngi nii di def micro territoire di wër ba sonn tey jii boobu léegi ñu ngi laajte amagu amaguñu ki nga moo ñu jox réponse bi te ñu doon jox xale bu jigéen ñoo di laaj jànk ça va naka si jàmm. maa nan la. Fatou. moom Fatou la tudd Fatou waaw sunu média TV moo la seet soo ñëw laaj ñu la ñëw di la bi nga xam te ni mu ngi si yaramu nit may laaj tur ba ban tur la. comprendre ma. am na benn tur nit bi nga xamante ni. waaw mu ngi si yaramu nit. may laaj tur boobu la. ndeyjoor. ah yow sa xalaat ndeyjoor la. waaw yow loolu leen gis ndeyjoor la. la waaw moom Fatou dafa mel ni moom mooy tur be bi ñu doon laaj ndax jox nañu question bi nee na ndeyjoor la waaw Fatou bu bu génnee si loolu ma laaj. maa la vaccin bi nii di ñëw la moo si sa xalaat. Ah, bi dama ci am ay da nga ciy amay. dut ay dut. waaw lan moo tax nga ah, bi baax na ñi ñu ne baaxul. ah yow sa xalaat loolu la ci. waaw mais bu ñëwee di nga vaccin no non non non lan moo tax doo vacciné wu. dama ragal. da nga ragal torop torop torop. wóoru ah. ah yow loolu da nga ragal. dama ragal waaye ma laaj couvre bi ñu def nii. arrangé na la wala arrangé wu leen. arrangé wu ñu. arrangé wu leen. déedéet moo tax couvre-feu bi arrangé wu leen. ah ndaxte ñun fii. wàcc 18 euh, heures. Mhm. ah bala ngay sa kër te kër Mbaye Fall laa dëkk. la dëgg la bala nga fay am nga tayage yi fii. Mhm. te nga egg 21 xam nga loolu duñu arrangé. waaw loolu moom du leen arrangé waaw wax na dëgg wax na dëgg waaw Fatou kontaan nañ trop quoi mais question bi ñuy jox nii jox ñu réponse bi laaj nañ ku nekkee jox ñu réponse mais yow ko jox di wax naan la félicitation affaire yooyu kontaan si yow trop njaay bi ngay jaay yàlla si yàlla gën a def xéewal barki sëriñ waay ok merci jërëjëf kontaan na waaw gars ko gis ngeen li ñu doon laaj ñëpp Fatou moo ñu jox réponse bi waaw gars yi jox di daje xam naa samedi bii ñëw incha si sunu média TV ñu daje foofu noonu di ko defee yeneen i incha allah ok